ak di njort ne dañu def ay ger mu am tam conflit d'intérêt ci biir conseil constitutionnel bi nga xam ne moo tax tam ba ñu reporté présidentielle yi ci fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 2024 bi loolee yëpp dafay màndargaal ne président Macky dafa mës a bëgg dakkal processus électoral bi nga xamante ne waa conseil constitutionnel ñoo ko doon doxal ñàkk wóolante bi dox diggante assemblée nationale ak conseil constitutionnel lu ñu fabriqué la te tey ko ñuy tuumalee sax ces sages yi nga xam ne ñoo war a def élection loolu yëpp dañu ko togg ba mu ñor laataa loolu sax jëf yi ñu teg doon na wane ne dañoo mës a bëgg toxal élection yi ñu ngi fàttaliku coow li amoon ci waa Sénat ba président ba daal di fa génn ñu teg fa ñeneen waa ministère de l'intérieur tam nit ñi bañoon a tënku ci ay décision yoo xamante ne yoon moo ko woon jëm ci ñenn ñoo xam ne dañu bëggoon nekk candidat loolee yëpp day wane ne report bi lu ñu xalaat la togg ko ba mu ñor tey tamit projet la ngir saboter processus électoral bi ngir gën a mën a toog si nguur gi waaye projet boobu yëpp nag daanaka dig na si ndox mi alhamdulilah ndax kat citoyen yi ñoom dañu ànd ak seen xel ndax citoyen yëpp ak organisation citoyenne yu bëri bi ñu taxawee ne dañuy résister si la ñu wax waxu dialogue boo xamante ne pour génn ci coow li report bi maanaam toxal élection yi ay nasaxa xandang la ndax vingt candidats yi daanaka ñoom lañ bëgg a tuur lëndëm report bi nekkul solution si crise bii di ñëw waaye report bi dafa nekk loo xam ne dafay jëmale Sénégal ci ab crise bu xóot lool autorité politique dootu fi amati wàllum koom bi tam daal di suuxe daanaka ñoo ngi wax waxum coup ñi nga xamante ne ay apprentis sorciers lañu ay courtiers ak ay teefanke ci wàllum politique mel na daal ñuy dox diggante te fekk ne leneen moo leen tax a jóg mu gudd mu gàtt li ñuy laaj yëpp moo di ñu sàmmoonte ak charte ndeyu réew mi te tamit ñu bàyyee leen seen àq ak seen yelleef bi ñu am tànn ci seen teyu bakkan président bi ñu bëgg